voilà mbokki internet euh, Thiès Info salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu am mbég ci dellusiwaat ak yéen kon ni ñu koy defee saa su ne seen site thiesinfo.com euh, politique à Thiès tey ñu am tout le plaisir di ci euh, dalal nag docteur Ndiaye di kenn koo xam ne ràññeeku na ci wàllu politique mais ràññeeku na également ci jàppale son excellence le président de la république Macky Sall fii ci diwaanu Thiès moom la ñu fas yéene donc seqal suñu waxtaan tey docteur salaamaaleykum ñu ngi lay nuyu. waaleykum salaam wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci taxawaay bi ngeen ñëw ba fii di waxtaan seeg ñun. Mhm. Euh, euh, docteur dañuy tàmbalee waxtaan bi xëy na dinañ dugg ci ci ci wàllu politique euh, mais dafa am situation bu am bu xew ci benn hôpital bu nekk fële ca Ndakaaru nga xam ne benn soxna soo xam ne dafa tallu woon ci diggante di matu ginnaaw gi nag lañ ko interdire ngir accès ci hôpital bi parce que tout simplement xëy na koppar gi mu war a faye faye moo xaw a manqué. xëy na loolu euh, bi nga ko gisee ci internet bi euh, bann réaction nga ci am. maanaam xam nga mbiru faj dafa am urgence ak li nga xamante ne moom mooy faj ordinaire li nga xam ne ki nga xam ne dañ koy suivre urgence nag moom xel dafa nanguwul nit dugg ñëw urgence ñu génn ko hmm. ñun ba ñuy nekk di jàng boobu. dañuy am loo xamante ne kit d'urgence la ku ñëw en urgence dañ lay jël en charge ba pare suñ la jëlee en charge ba pare ñu lay doog a topp pour nga seet nan la ñuy def pour nga régler ko loolu nag moom moo tax man di jaaxal na ma sax loolu mën a am parce que bon presse moo ko wax peut-être mais man amuma ci firnde mais loolu dina ma jaaxal lool que ci benn hôpital nit ñëw ñu bañ ko jël ba pare di ndax peut-être fayul wala yu mel noonu alors que urgence la d'autant que accouchement fi mu ne nii Sénégal. de président Macky Sall def na ba nga xam ne kenn dootu ci fay. kon mënuma comprendre mu mu euh, césarienne ci bi nga xam ne moo gën a rëy gën a diis kenn du ci fay. à plus forte raison fekkee peut-être accouchement normal la loolu dina ma jaaxal trop mais nag comme awma ci firnde yëpp mënuma ci sori. la situation du du Covid au, au Sénégal bi ñuy toll ci euh, xëy na ñaar fukki cas ak lu teg euh, le président de la République waxoon ne l'heure est grave tey on est à plus de yoo xam ne ñu ngi sous traitement l'heure n'est plus grave euh, assouplissement am ci mbir yi nga xam ne donc ay mesures barrières la ñuy jëloon jàngat bi nga ci am lan la docteur. maanaam xam nga l'heure est toujours grave mais euh, comportement yi ñoo changé mm-hmm. mais l'heure est toujours grave. c'est-à-dire xam nga bu ñu commencé président dafa ne l'heure grave mais bii paas dafa war a continuer te ci loolu mu sax ci li mu wax ci ko comprendre moom mooy l'heure est grave parce que nee na la maladie est toujours là et risque d'être là encore longtemps maanaam nee na feebar mi ngi fii suñu biir te dina fi mën a nekk lu yàgg encore kooku xam nga ku ko wax moom mooy l'heure est mais attitude bi nga xam ne dañ koy am analyse la bu nit war a def ci situation. mais wax ji méngawul ak jëfin yi des mooy li ma wax nii. attitude bi nit ki dafay li ñuy wax jàngat dafa am nit dafa ñu ba ñuy door dafa am ay prévision maanaam ay nit ñi nuñ ko gisee noonu la nar a ñëwee sunu dëkk yi moom mooy ay prévision statistique yoo xam ne dañ ko defoon ci sondage ak yi ñu defoon ci ay ana étude waxoon nañ ne Sénégal mbir mi dina gën a graaw que li nekk Europe mhm. maanaam dinañ am suñu defee deux mois dinañ dem ba nga xamante ne deux mille morts par jour comme ni mu doon amee mm, Europe ni mu amee Italie ni mu amee États-Unis ni mu amee France loolu la woon noonu am fi ba ñu doxalee ba mu yàgg gis nañ ne loolu amul waruñu bàyyeetin benn nit ay regroupement de plus de cinquante personne dañ ko war a interdire mais nag économie nekk na lu am solo ci dëkk ba nga xam ne ci sunu dëkk yi nga xam ne dañu sooxe bu mënuñu ñëw daal di tëj dëkk bi yëpp suñ ko defee moom mooy li nit ñi di dee ci ci ci ci ndóol ak xiif mooy ëpp li nit ñi di dee ci feebar bi waaye nag du tee suñ leen nee dañu war a reprendre dañ ko war a reprendre ci conditions yi nga xam ne ci sama xalaat man conditions yoo xamante ne économie bi dina mën a dox waaye feebar bi du mën a law. est-ce que bàyyeeku amu ci ni ko le xalif général Serigne Babacar Sy Mansour. non bàyyeeku amu ci parce que président nee na demandé na nit ñi ñu jël seen responsabilité waaye su doon man. sénégalais sénégalais sénégalais sénégalais hmm. dafa am étude sociologique c'est-à-dire da nga koy xam. sénégalais soo ko nee euh, mbir mi tane na rek mu daal ni sama yoon nekkatu ci donc pression minimale bi nga xam ne dañ ko war a teg ci nit ñi dañ ko ci war a teg même su fekkee dañuy wax économie bi nañ dem nit ñi nañ voyager mais nañu war a imposer ne que du ñu am benn réunion de plus de cinquante personnes ku nekk jël sa matuwaay parce que ci ni ngay dimbalee sa bopp. noonu ngay dimbalee sa morom. Ah, askan wi ñu bari ñu ngi wax ni ak laj ji am na ci rawatina ci jëwriñ ji ñu dénk eh, wàllu wér-gu-yaram le ministère de la santé et de l'action sociale dem nañ sax bay dégg kenn ku bokk ci ñoom eh, Moustapha Cissé yekk ko lu mel ni xeme jàpp na xëy na ak cuune la ci li nga xam ne dénk nañ ko. mais non c'est-à-dire xam nga euh, man du ma dugg ci considération yooyu mais tey soo xoolee senegal hmm. nga natt ko ak yeneen dëkk yi nekk ci àddina bi c'est-à-dire nga natt ko ak France. Hmm. nga wala nga natt ko ak Côte d'Ivoire dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo méngoog ñun wala nga nag natt ko ak yeneen dëkk yi nga xamante ne taux de guérison yi ñu am ñoom amuñu ko kon mënuñu ñoo wax nañu ñun lajj nañ parce que ministre de la santé ci loolu lañ koy lañ koy seete mënuñu ne lajj nañu parce que ñun suñu taux de guérison moo ëpp parce que moom dem na sax bay wax ne technicien de la santé yi ak moom xëy na du benn non non non yooyu ay wax la rek xam nga le ministre de la santé du du faj benn malade ministre de la santé vision lay teg te vision boobu am na te vision boobu mi ngi jógee depuis le président de la république te président ñi maa ngi koy remercier parce que fan yi mi ngi bëgg jëlaat yeneen relevé plateau technique bi enga ah jëlaat yeneen médecin jëlaat yeneen infirmier ak euh, personnel euh, d'accompagnement muy presque mille yu ñu war a def muy effort bu mag malgré la situation bi nekk loolu yëpp ñu koy rafetlu di ñaan nag nit ñi xam ne mbir mi seen mbir la nit ñi dañu sénégalais bu ñu toog ne xalaat mbir mi toujours ci état lañ ko xaar mm-hmm. lu lii nag na ko ku nekk jëlee sa mbiru bopp su ko ku nekk jëlee sa mbiru bopp nag mbir mi yaatu ba daal nekk mbir état. Euh, jërëjëf euh, docteur dañuy ñëw nag euh, en tant que responsable politique ndawul président de la république fii ci diwaanu Thiès ku ne xam na jéego yi nga xam ne def nga ko ci jàppale président de la république fii ci ci diwaanu Thiès mais docteur qu'est-ce qui jamono yi ñuy génn dégguñu docteur ci ci lenn mu mel ni docteur moom relâchement bi ñuy wax ci Covid bi ci état du Sénégal daa mel ni relagement boobu également dafa feeñ ci si taxawaay ci coalition benn Bokk Yaakaar. mais c'est-à-dire xam nga euh, lu ne dafa am euh, jamonoom lu ñu ko war a doxe fi ñu toll nii sincèrement ku waxul waxu feebar bi yaa ngi def loo xam ne du. mais mais docteur jamono yi feebar bi dugg tam également gisuñu la woon ci ci ci. Ah dangeen ngeen da ngeen comprendre. ah parce que xam nga nit dafay seet li may leen wax de euh, nit ñi dañu ñëw daal di ne président ak yëpp ba ñu déparé. ñoom ñëpp dañu déparé ci approche boo xam ne approche euh, de prévention à partir du haut niveau man Pape am Ndiaye yàlla dafa def sama liggéey yëpp boobu tey lii ñëwagul approche communautaire laa ma sa dox j'ai plus de 300 groupements ci biir Thiès. waaw mais tey tayal amu ci. Hmm. c'est-à-dire am nañu plus de 300 groupements yi ci biir Thiès. groupement yëpp def nañ leen formation ci eau de javel ak savon loolu kenn mësu ko woon xalaat ne ba ñu koy def sax boobu xalaat bi dina am. ba mu dooree ba léegi groupement yëpp démarré waat nañu seen activité defar eau de javel defar savon di ko jox ci daara yi di ko yóbbu ci ci ci ci ci euh, euh, ci personne vulnérable di ko yóbbu ci mosquée yi mm-hmm. yooyu c'est des actes la ñuy wax acte citoyen su fekkoon tey groupement yooyu yëpp ak yeneen ñeneen groupement yëpp defee nañ noonu mais ñun ñuy def seen sensibilisation suñu groupement di leen wax ne que parce que ki defar saabu defar eau de javel déjà rek le fait mu koy defar rek moom mooy wane na mi ngi déjà mi ngi wane boppam ne ki kii ko war na ko utiliser. mais mais politiquement euh, docteur politiquement au, au niveau de Thiès gisoon nañu la ci ci nga nga engagé wu à 100 pour cent ci lépp loo xam ne dafa taxaw ci euh, euh, wane liggéeyu président de la République au niveau fii ci Thiès ak au niveau national même mais temps yi daal docteur daal vraiment nit ñi nemmeeku nañ sax ne. Mhm. déggatuñ la fenn. non non mooy li ma wax nii li ma la wax nii lu lu gis nga lu euh, lu nekk dafa am jotam xam nga tey li gën a bon ci àddina mooy nga dem dëj nga fay fecc taasu fii mu ne nii dañu nekk ci lu problème bu nga xamante ne communautaire ñëpp nañu dem seeti seen i mbokk seeti seen i nit yee leen ci feebar bi man ba ma commencé ba léegi amul plateau boo xam ne woowuñu ma ci ma ciy def sensibilisation ci ci ci ci Covid bi fii ci Thiès depuis le début maa ngi koy def parce que dama xam ne loolu fi mu toll nii loo kuy wax loolu nga war a wax mooy aali gi su loolu weesoo nag ñu ne jot bësu bëre jot na ñu wane ngeen ngeen simi simeeku daal di dem ci ci ci arrêt bi. bëre boobu taay woo ci nga yaakaar. mais taay yi amu ci ñun askan wi la ñuy dimbali sunu xalaat ak sunu xalaat ak sunu xam-xam mooy nan la ñuy doxalee bi askan te loolu ngay gis nii fekkoon dama ko yemale fii ñu ne ah docteur daf fekk fii daf fii politique moo tax. mais soo demee Touba j'ai plus de 300 groupements foofu yoo xam ne maa ngi leen di accompagner fan yi passé joxe nañu mille litres de litre de javel ak savon may ko askan wi loolu lépp ñun ñu ngi koy def foofu te Touba la déedéet damay loolu pour wax la non non man du ma politique Touba loolu pour wax la nekk man li may liggéey ci askan wi moo tax may jóg mhm. te loolu askan wi moom fu ma fu ma fekk ma ne fa te xam ne ñii war naa leen mën a dimbali ca la la ñu ne dama leen koy dama ciy nekk loolu moo tax euh, fu ma dem rek te ma mën ko dimbali tey jii soo demee si biir département bi foofu politique ma fa mais ba tey jii macha allah muy mbooro. muy gars yi nee na ñenn ñi ñu tàmbali di bàyyi président nag Macky Sall ndànk-ndànk euh, est-ce que euh, docteur aussi mënuñu la xaar foofu. ci tekkaaral bi nii non tekkaaral amul ñun ñun ci base bi rek la ñuy liggéey groupement yi ñu ngi leen di monté xam nga yow lii ma la wax ne ci groupement xamuloo ko. mais loolu ñu ngi koy doxal soo ko demee ci biir jigéen ñi di nga ngi nekk. Mhm. mais am liggéey boo xam ne liggéeyu biti la ak liggéey boo xam ne liggéeyu biir la. am na ñoo xamante ne plateau yi la ñu nekk di wax ak yooyu mais soo leen waxoon tey ji génne leen dix groupement wala dix nit yoo xam ne ànd nag yow yow mënuñ ko génne. am na Thiès. mais mais partout. ci xanaa ci benn bokk yaakaar partout partout partout xam nga politique. Hmm. dafa am ñoo xam ne des politique de de la ñu am ak ñoo xam ne politique de terrain la ñu am. ñooñu nekk ñu benn bokk yaakaar ak Thiès. non man waxuma benn bokk yaakaar xam nga waxtaan moom suñ ko bëggee doxal nañuy wax ci généralité bi bu ko personnalisé hmm. mais lenn leer na am na fi ñoo xamante ne tey bés boo leen woowoon ne leen ne ma juróom fukki nit yoo xam ne yow lañ àndal duñ ko génne alors que ñun tey amul moment buñ ko mën a def à Thiès ñu ngi yëngu de président boo demee zone est bi responsable Benno Bokk Yaakaar yi ñu ngi yëngu les mouvements de soutien ñu ngi yëngu mais daal fi euh, bi yëpp fi mu ne nii yëngatu sax mënul nekk parce que il est interdit de faire des rassemblements nan ngay yëngatoo looy yëngatu yëpp moom mooy taxaw di défendre jamono ji gis nga opposition bi li ñu yekk euh, Ablaye Wade li ñu yekk le président Macky gisuñu kenn koo xam ne sax euh, au niveau de Thiès mu ngi taxaw di nekk xam nga daal défenseur yi ci équipe bi daal waaw mais xam nga défenseur kenn gisatu leen xam nga défenseur xamee woon nañ la fi xam nga défenseur hmm. dafa am ñoo xamee ne ci équipe ay attaquant lañ ñoom ñoo xam ne défenseur lañ yi ñu ngi ci télé yi di défendre attaquant yi ñi nga xam ne ñu ngi ci am askan wi ñoom ñu ngi ci askan wi di liggéey ak ñoom ñun ci loolu la ñuy doxal. fi ah yàlla moo xam mais man daal li ma gën a xalaat ak li may gën a dox mooy ci joxe askan bi di leen jàppale di leen def formation formation ci savon formation eau de ñoom pour que ñoom ñu mën ko defal seen bopp. pour que ñu bo lan ngay tontu ñuy wax ne docteur da doon xaar xëy na ndombol tànk parce que euh, euh, bokk nga ci ñi nga xam ne xëy na ñoo njëkk a taxawu Macky Sall fii au niveau de Thiès. Hmm. liggéeyal ko fi lu lu bari également. est-ce que tey lan tontu ñi nga xam ne dañuy naan. Euh, euh, docteur xëy na dafay xaar ndombol tànk ba léegi gisagul dara tax na daal. non non non fi mu ne nii ay bras croisés la. def non non non affaire ndombol tànk yooyu ku ko wax jëm ci man sax xam nga ne da ngay wax loo xamante ne amul bopp man sama teraanga ci sama ñaq laa ko yaakaar ku ma xam ci sama ñaq nga ko xamee ku ma xamul tamit ci loolu nga ma dégg man tooguma ci ñi nga xamante ne mais man sama eh, jarul sax wax fii. mais man salaire bi nga xam ne FONGIP dañ ma ko jox dama ko jël séddale ko xale yi ku doon xaar doomu tànkan ci la ko joxee da nga koy def sa poche pour wax la ne man li ma yaakaaruma ci lu dul ci sama ñaq man sama kër sama njaboot li ma leen dindale xam nga mooy lan loo xam ne ci sama ñaq la daanu donc euh, ay euh, euh, poste bi moo jël mais tey je ne sais pas mais xalaatal ci xel poste bu ñu ma fi mënti jox mënta weesu li may am. par mois fii ci sama liggéey. ñu ngi la koy seedeel parce que dégg nañ ko ci euh, euh, yenn ci imaam yi ñuy wax taxawaay bi nga xam ne yaa ngi koy taxawu euh, jigéen ñi surtout ñi nga xam ne dañoo dañoo dañoo wan lool. waaw xam nga loolu aussi c'est à saluer parce que ay action xam ne. parce que ku nekk ci li nga mm-hmm. tey su fekkoon man béykat laa mais ci li ma béy laay jël dimbalee ko nit ñi. mais man médecin laa ci li may li may liggéey ci dimbali askan wi ñu bari nag dañu naan pour ñoom loolu dañ koy dem fàtte ko mais su fekkee da natt rek nga xawal nombre de personnes yi nga xam ne chaque jour yaa ngi leen di dimbali te fekk euh, waroon nañu joxe te seen loxo jotul seen ginnaaw mm-hmm. mais soo ko nattoon tey ci xaalis kese kese kese kese mais kenn du xam nu mu toll. Euh, la situation de benn Bokk Yaakaar à bu fekkee ne xëy na report amul ci élection locale yi euh, on est à dix mois des élections ci li ñu mën a jàpp jamono ji euh, fi mu ne nii euh, au niveau de benn Bokk Yaakaar à Thiès yi kenn ku nekk yaa ngi génn si sa gox ci ci sa gox di déclaré wu ne yow bëgg nga si gox bi nga nekk docteur moom fan lañ koy xaar ci zone ouest bi ndax moom bëgg na wala. daal dafay xaar coalition Benno Bokk Yaakaar mu tranché ñun ni ngay gis nii li ma lay expliqué léegi la man damay seet nu ñuy doxalee pour askan wi dem ca kanam nan lañ leen di jàppale tey tey su ma gisee koo xamante ne macha allah ci taxawaayam ci pas-pasam ak ni muy doxale moom moo ñu gën a mën a diriger dëkk bi wala dëkk bi moom lañ gën a jox bopp man maa koy njëkk a jàppale loolu rek la. su suñu demee région en tant que c'est sa candidature personnelle. non loolu su dépend tout dépend parce bu ñu ñu demoon ba toog xool seen biir ñu daal ne peut docteur mooy la personne la mieux habilitée pour mun ko def ba pare ñu xool ñu seet ñu ne kii am na ay euh, par rapport ak euh, implication sociale am par rapport ak askan bi ni ñu ko xamee kooku mën nañ ko xalaat mais su fekkee tey am na ñeneen ñoo xam ne ñoo gën a positionné seen xel ak seen xalaat ak seen taxawaay gën a. ñoŋ. mais ñun ñi ñooñu leen di jàppale. mais zone ouest bi ne tekk de zone nord boo fa demee Habib Niang bëgg na ci coalition Benno Bokk Yaakaar la nekk zone est boo fa demee Abdoulaye Dieye bëgg na. Euh, ci ah, coalition Benno Bokk Yaakaar la nekk moom. Ah, ah Ousseynou Diouf nee na bëgg na ah, alors. Hmm. am na euh, Ousseynou Diouf nee na moom tam bëgg na am na noonu la ku nekk am na fu ku nekk ngi wax ndax bëgg nga. loolu mooy politique yow personnellement li nga yàgg liggéeyal Thiès nga laaj sa wàll wala da nga. non man aw ma ci wàll man aw ma fii wàll man dimbali askan wi moom ma yëkkati mais man wàll awma ko hmm. man sama wàll ci sama liggéey la nekk macha allah falaa ci jamale léegi nag man ci biir xalaat bi ak ci biir doxalin bi ndax yàgg naa jege askan wi yàgg naa xool li leen seeni mbébét ak yooyu xam naa man li ma xalaat am naa une vision pour la ville man ci looloo tax ma daal di ne kon dinaa mun a ñëw jàppale léegi même su amoon kii que ce soit boo xamante ne am na vision boo xam ne moo gën a clair sama bopp bos wala askan wi gën nañ ko jox bopp mais dañ koy jàppale. doxalinu benn bokk yaakaar à Thiès pëccëxoo gi bëri na xiiroo ŋaayoo gi. Euh, bëri na euh, ban jàngat nga ci loolu politique moo mel noonu. politique Sénégal foo dem boo xamante ne parti buy gérer pouvoir. ñoo mhm. def il faut mu am tëb ak dal. loolu moom soo fekkee bëgguloo loolu nga dem toog sa kër mais politique gu Sénégal surtout politique boo xam ne yéen a yor euh, pouvoir bi mais il faut que ay intérêt dugg. am na ñoo xamante ne lii moo leen yëkkati ñii la leen moo leen yëkkati yaakaar daana ko yoru fi ah, waaw mais c'est que soo ko ku nekk ak li ñu koy xoole hmm. benn bokk yaakaar ba ñuy ñëw Cees 2012 y avait rien Sénégal ba ñu ñëw Thiès moins de 6 pour cent la la la le président Macky Sall am au premier tour yow rek yaa fi nekkoon moo tax Thiès waay di xaar euh, ne docteur war na am ndombol tànk non non non ndombo tànk bi am mais bi amul ci solo hmm. parce que lii am solo man man moom mooy Thiès avance te macha allah quand même il y de grands projets pour Thiès tey ci rek gis ngeen ci euh, projet de budget réaménagé bi trois cent milliards yoo xam ne dañ ko war a indi pour le chemin de fer te loolu lépp ñun ñoo ko xeex kon du li ñu doon liggéey démarrage 2 lañ ko waxoon fii de ci promenade. ba léegi mais dama ne waaw damay wax damay wax xam nga loolu président moom moo ko waxoon mais tey tey tey ministre de de de des finances moo toog assemblée nationale. daal di ne voici le budget réaménagé ci budget réaménagé boobu nag ñu daal di ne am na temps lii pour jam euh, ñaajo Diamniadio euh, Diamniadio euh, AIBD lii pour Mbour autoroute Mbour Kaolack lii pour chemin de fer muy loo xamante ne dañ koy budgétiser mu génn kon lu ñu doon wax projet ay projet la mais lii dootul projet c'est un fait réel boo xam ne dañ ko def ci biir budget bi lu nekk xas ba nekk ci biir budget bi nag kooku xel war na cee man dal. le foncier à à coow li bari na ci wàllum suuf euh, fi mu ne nii daanaka au niveau national sax la ñuy wax waaye fii au niveau de Thiès gis nañu euh, euh, li nga xam ne amoon na fi ak collective gi nga xam ne donc juddu na fi te juge Amidou dem nekk ci. Mm. les maires de réew mi également defaat beneen sortie mm. le foncier à à Thiès docteur boo ko doon jàngat wala boo ci wax sa xalaat lan nga ciy wax. maanaam xam nga loolu vraiment ay nit ñi day yenn dañuy dégg coow rek ñëpp bëgg cee dugg Thiès dafa am problème xam nga mooy lan ressource foncière moo fi amul yàlla dafa def ba nga xamante ne ci division bi ñuy diviser euh, communes yi Thiès dañ ko def comme nen maanaam comme nen la nekk dañ ko wër amul benn possibilité d'extension moo tax tey jii fu yeneen dëkk yi su ñuy mun a def euh, ay euh, comment dire lotissement Thiès bokku ci Thiès mënutul def lotissement yi ñuy wax ni ay lotissement amu fi de yii nga gis yëpp désaffectation la désaffectation nag moom mooy ci kayit bi ñu la bindal dañ la ne sooy euh, kayit gi suñ la koy jox kenn du ko jaay dañ la koy may abal abal bi nag suñ la ko defalee ñaari at yi nga xamante ne yi njëkk yi danga cee war a def dara soo ci deful dara dinañ ko nangu jox ko keneen koo xam ne moo ko gën a yittewoo mm-hmm. te su ko loolu so suñ koy def nag bu soxla sax ñu woo la wala ñuy ñu ñu ne la kaay wuyu dañ la koy defal kon loolu ba nga yow nga jël kayit gi nangu ko te saa yoo génnee kayit gi yaa ngi ko jàkkaarloog moom kon xam nga ne soo téyee sa kayit yor sa terrain defoo ci dara plus de vingt ans suñ ko nangoo désaffecté ko jox ko keneen kooku war ko liggéey kooku tamit su ko liggéeyul it ñu defal ko kon niñ ko ko defal souvent ñi ciy wax dañ ko maîtriser wul wala tamit dañuy def des fois de la politique politicienne bëgg nañu yëngal ndax dégg ñëpp a ngi wax waxu suuf fii Thiès luñ ci war a wax mooy nan la ñu war a def intercommunalité ba nga xam ne yeneen commune yi nga xam ne ñoo nekk ak suñu wet ñun nan la ñu mun a def ba suñuy action ak suñu ay euh, projet ñu mun ko def foofu parce que Thiès amatul un mètre carré bu ñu fi mën def projet gis nga ne tey ba ñu nee dañuy def euh, marché au poisson fii Japon ne dañ ñuy jox xaalis 600 millions pour ñu defar marché au poisson japonais yi dañoo delloo ak seen xaalis amul mètre carré bu ñu ko fon def loolu nag yooyu dañ ko war a réfléchir te loolu nu ñu koy mën a réfléchir moom mooy nan la ñuy def intercommunalité pour que ñun muy Fandène muy Kër Moussa muy euh, yooyu yëpp nga xam ne ñoo ñu war nan la ñu mën a liggéeyee ba ñun suñu ay projet ñu mën ko def foofu ñoom it ñu mën ko accepter parce que duñ ko projet yooyu yëpp parce que projet euh, Sénégal la projet département bi la te loolu suñ ko waree def ñu mën ko def mais loolu day fekk ñi ñuy juboo mais su fekkee tant que ñi ngi gisante comme ay li ñuy wax ne en chien de faïence di xoolante nii ku nekk naan man sama intérêt personnel sama mairie la yem loolu yëpp moom mooy du ñu dem moo tax intercommunalité boobu loo xam ne man dama koy xeex bëgg ko vraiment ci sama xol te di ñaan président la république ñu def ba nga xamante ni ñun fii commune bi ak département bi ñun ñëpp ñu bokk nekk benn Bokk Yaakaar pour que suñu liggéey ci jëm foofu gën a yomb. Mhm. en tout cas ñu ngi euh, féliciter euh, ki nga xam donc moo di euh, JBC mi receveur des impôts domaines gis nañ également taxawaay bi nga xam ne mu ngi koy am ci foncier bi au niveau de Thiès je pense que loolu aussi c'est un travail à saluer président xëy na ñu ngi suy cappaandawlu émission bi dañu lay bàyyi rek nga wax kàddu gu mujj gi mais laataa loolu docteur xam dégg nañ for nañ ci weewu béy ne yow nekk nga benn quelqu'un boo xam ne am nga connaissance ci wàllu comédie. ah gisoon nañu sax benn troupe boo xam ne euh, mu ngi woon euh, soleil levant doon tourner ay ay ay ay ay ay ay seen ay série sa biir kër. Mhm. mais dafa mel daal ñooñu ñu ci bari tey am na ñu koy def waaye docteur mën na leen ko jàngal. Mm, affaire culture ak art. dafa nekk loo xamante ne man dafa ma soxal. Euh, ñi ma xam ba ma nekkee xale ci loolu lañ ma xamee woon parce que bon médecine bi moo def ba nga xam ne dafa jaloux. la médecine est jalouse mënul àndal ak leneen mais man ñëpp ci ñaari yëf lañ ma xamoon. sport parce que j'étais champion du Sénégal de judo ak ci théâtre parce que dama daan dirigé ay troupe théâtrale boobu ma nekkee xale mais ak médecine bi euh, li mu laaj ci jàng ak li mu laaj ci yëf ci jot yooyu mënatul man j'étais en équipe nationale dama mujj arrêté équipe nationale dama doon yore ay troupe dama ko mujj arrêté moo tax tey su ma gisee xale yi damay am ñeeyantal ci yow hmm. lu ma ci mën ci jàppale leen rek dama ciy taxaw bi nga xam ne yaa ngi koy jàppale loolu nag ñeeyantal bi ma parce que damay xool ba may ba ma daan ko def mu nekk lu am solo man may jox benn exemple dama dem France euh, di jël étudiants yi foofu créer fa benn troupe mais dafa am moon macha allah succès boo xam ne ba ñu woo ma ne dama bëgg ñu yóbbu ko M6. pour def tournée nationale ma daal ne laa ilaaha xanaa xamu ne man médecin laa parce que feeñee kon ma tàkk. <laughs> nan la ñuy retaane ñu arrêté ko mais pour dire que nit ki dafay war a am plusieurs facettes. Euh, ci dundam nekk euh, taxaw nii rek may man sport laa xam aar laa xam. yàlla def na ba ma nekkee xale ci loolu laa doon yëngatu ñu ñu bare xam ma ci mais tey jii ma nekk mag mënatuma ko mais macha allah ñi ci ne ci li ma man li ma leen si jàppale. docteur Pape Amadou Ndiaye cant ngërëm ñeen la kàddu gu mujj gi. di sant bu baax. Mm-hmm. di waxaat nit ñi ne que dañuy war a bàyyi ne defe ne mbir mi la arrêté nañu couvre-feu bi rek moom mooy lu waay neex def mm-hmm. nañu arrêté xew yi. nañu arrêté euh, tout ce qui nga xamante ne dañuy nit ñi dañuy daje comme ni ma gisee xale yi di dem plage di dem di di def loolu dañ ko war a arrêté su doon sama sago et c'est ce que je demande au ministre que ñu def de telle sorte que ñu interdire tout réunion de plus de cinquante personnes non autorisées ñu arrêté ko bàyyi nit ñi nga xamante ne ñi ngi dem ci euh, suñu continuer léegi gars yi daal ne dañuy dem nawetaan suñu continuer dañuy ne dañuy def yeneen ak yeneen yoo xamante ne day gën a lawal feebar bi te su ko eggee ci su eggee ci benn niveau bi suñu euh, système de santé mënu ko dékku su su ko système de santé mënatul dékku dañu fi ñeneen ñi yem fa la ñuy yem yàlla nañ ci yàlla mosal. Hmm. jërëjëf euh, mbokk internet Thiès Info Pape euh, Amadou Ndiaye moom lañu doon dalal di responsable politique au niveau de Thiès di jàppale également. Euh, euh, ki nga xam ne donc moo di le président de la république fii ci diwaanu Thiès amoon mbégte euh, ànd seeg yéen politique à Thiès ci kàddu gi Ahmadou Bambali feggoon ak Assane Ndiaye ci wàllu xarale gi jox leen rendez-vous prochainement incha allah ci beneen numéro seen émission politique à Thiès jërë ngeen jëf.